asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci ne sa ak sa sant comme nuñ ko baaxoo di def saa su ne euh, bu gàmmu jotee màggal ak lu mu mënti doon xew-xew bu mu mënti doon ñu daal di fay teew daal di leen dégtal lépp loo xamante ni daf fay xew comme xibaar jottali leen ko tey nag ñu ngi fii ji diwaanu Tiwaawan malgré que Tiwaawan gàmmuwul waaye Moustarchidine yi ñu ngi gàmmu ñoom ñu ngi fii ci di diwaanu champ de course gis ngeen ko euh, mbooloo mi ñëw nañu a tàllal suñuy micro dañoo gàmmu si ñëw màggal si li nga xamante ni moom mooy juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu ngën ngi mbindeef juddu ki nga xamante ni moom moo tax ñu binduñu ba tax na mbooloo fu nekk la jógee ñëw wàcc si fii ci diwaanu Tiwaawan ngir fekkee si li nga xamante ni moom mooy gàmmu Moustarchidine yi dinañu dugg ci ruq-ruqaat li xamal leen lépp loo xamante ni moom moo xewee fii ci diwaanu champ de course ak lépp lu fi tukkee do mel ni xibaar dinañ leen ko jottali di leen jox dig daje léegi léegi waaleykum salaam wa rahmatullah tur bi Pape Malick Fall la. sëñ bi da ngaa gàmmu si. waaw dañu ñëw pour gàmmu si màggal juddu yoon bi sallallahu alayhi nga jóge. maa ngi jóge ba diwaanu yëmbal. yëmbal ñëw gàmmu si. ñëw gàmmu si waaw. lan moo nga ñëw gàmmu si ren Tiwaawan malgré que li nga xam ne mooy xalif bi wax na ni gàmmu amul. waa li ma motiver ba mu ñëw Tiwaawan mooy topp ndigal parce que itam sama wasila Cheikh Cheikh Mouhamadul Moustapha si moo woote ñëpp ñëw fekk si ko fii nga xamante ne moo di Santikouz ñu ñëw ngir màggal juddu yoon bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo andi fii ci waawoon. ren contexte bi ak Covid 19 bi naka ngeen fas yéene euh, euh, màggalee juddu yonent bi. waa ren nag xam nga comme feebar bi comme ñëpp gis nañ ko Covid 19 bi moo tax jël nañu yëpp bépp euh, maanaam matuwaay yi nga xamante ne dañ ko def ba kenn kenn bañ fee jëlee lenn loo xam ne daf koy lor. yaakaar naa bu ñu ngeen bu fekkee dugg ngeen ci biir ngeen xool tente bi ni nga xam ne noonu lañu installé siège yi dañ ko def euh, maanaam ku nekk danga nga am sori mesure de barrière dañ ko def dañ ko respecté en même temps tamit euh, masque yi kenn dugg fii sans découche takkuloo masque parce que itam wax dëgg yàlla kilifa gi joxe na ndigal pour ñëpp ku ne mu respecté mesure yi nga xamante ne moom lañ ko war a def incha allah wax dëgg yàlla tamit yéen tamit ñi ngi kontaan bu baax ci yéen parce que itam lii am na solo lool. kontaan nañu yàlla na yàlla defal leen li ngeen bëgg ci barke kilifa gi waaye itam yàlla defal leen li ngeen bëgg ci barke ki tax ñu daje fi muy lawalam yalox fii fadail kawni talaatuhu tabqal bariyat fi zalma i allahu sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf maaleykum salaam soxna si waaw Babacar Fall la dañoo gàmmu si incha allah gàmmu bi ren contexte bi day na waar covid 19 bi naka ngeen ko fas yéene célébrer waaw xanaa rek comme ni ñu ko sunu kilifa Serigne Mouhamadou Moustapha Sy digalee rek xam nañ ne moom euh, Covid bi moom il existe mais jusqu'à présent mais waruñu mën tere ñu def suñu faraat parce que yonent bi moom euh, yaakaar naa lu munul fànq amul feebar bi yaakaar naa sax jaamu yàlla la kon moom ñun ay jaamu yàlla lañ ko moom loolu moo waral mu woo ñu pour ñëw célébrer comme d'habitude ni ñu ko doon defee incha allah. ren mën nañu xaar cérémonie officielle bi wala mën nañu xaar ay euh, ci sëñ bi euh, digle yoo xamante ni comme ni mu ko faral di defee ñëpp sukkandiku. waaw loolu moom moom moom saa yu génnee rek ñëpp ay jël leçon waaw kenn war dina jàng nit ñi daañu daañu xamaat fu ñu teg seen tànk waaye la ñu rappelé tamit à l'ordre ba ñëpp xam maanaam fu ñu war a taxaw ak lu ñu war a def loolu moom incha allah moom lu ñu miin ci ay génnam waaye xam naa cette fois yi dina am benn message bu exceptionnel boo xam ne dina wuute ak yi ñu daan dégg incha allah. fa jóge man maa ngi jóge ba luga Louga la waaw. ok merci ba Rufisque. ñun ñooy waa santé. waa ñun ñoo gérer lépp loo xamante ne nii mooy propreté ak lépp loo xamante ne nii si si set bi daal la bokk ak yooyu comme que instant bi feebar bi dafa am ak corona bi moo tax dañuy prévenir ñëpp pour ñu respecter masque yi ak gel yi ak set bi aussi ñuy raxasu prévention bi waaw prévention bi mooy euh, nañ def daal lépp loo xamante ne nii dina tax feebar bi du ñëw si ñun waa da nga di maye ay masques. waa dañuy maye ay masques dañuy joxe ay gel aussi parce que moom lañ yore nii pour distribuer ka si nit ñi ñi nga xam ne amuñu masque ak ñi nga xamante ni nii dañuy soxlaa gel yi ak yooyu parce que yaakaar naa dispositif yi du ñëpp ko du ñëpp ko am mais dañuy def lépp te yàlla tax rek ndax gàmb gi moo tax. waaw ci ah. commission euh, bi ngeen bokk wala da ngeen si commission bi lañ bokk waaw si commission bi lañ bokk. ah bari nañ moom macha allah bari nañ moom. ay xale lañu waa te ay élément lañ aussi ñu ngi def santé di jàng santé or même or daayira bi waaw moo tax nag ñu si gën a forger nit ñi pour à ñuy bàyyi xel lool. mais lii bénévolat la. waaw. dañ koy def gratuite. parce que ñun daayira bi yaakaar naa defuñu loo xam te ne dañ koy jaay wala dañ koy kii dañ koy leble ak yooyu mais lépp gratuite lay doon ndax yàlla ndigalu sëriñ bi waaw. man xalifa Gueye laa tudd waaw. wala may jaay foto waaw. non sant yàlla rek. parce que ku ci nekk bon maanaam li nga war am yàlla bind ko dans quarante jours ngay judd te lu war danam sant. lool. sant yàlla rek sant yàlla vraiment ren ñoo ngi sant yàlla. waaye daaw ci la gënoon dox ka ren. non wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla yàlla moom mooy namee noonu lam ko propose jëkk dispose. jaay mi nan la demee daaw rek. noo wax dëgg yàlla mais sant yàlla. Hmm. man li may jaay moom wax dëgg yàlla gaa ngi koy jël waaw waaw